nga masse salariale collectivité yi mais kooku mënoo fexe yow ah à moins que nga nekk xanaa collectivité yi mel ni ay ville de Dakar nga xam ne yow peut-être bon yaa ma gën a xam seen budget yooyu mais fii am na fi ay communes yoo xamante ni dañ leen war a jël rattaché leen ci yeneen i te loolu la loi bi wax mais lépp politique la politique kese. donc politique bi daal bokk na ci entravé bu baax a baax. bu baax euh, seen seen gestion. ak seen fonctionnement. su ma déggee agent yi di grève ñu naan pourquoi ñuy grève ak adjoint maire yi waaw mais ay adjoint maire ville sax xaw na tane tuuti mais ay adjoint maire ñuy jox ay cinquante mille kii ay xaw ma ñaata mille dañu waxante dëgg may nañ génnee politique bi ci collectivité territoriale yi te dafa yàgg de ba ma toogee ba léegi ba ma toogee ba léegi nekkuma ci jàmm. ah peut-être avec Fada dina tane. avec Fada dina tane moom il a été maire. ba ma toogee salaamaaleykum xaw ma lan lañ ma gàttandoo. juróom-ñetti weer sans salaire. man suis resté huit mois sans salaire. xam nga lu tax saa bu ñu laajee ñu ne non sa matricule bi turu kii moo fa nekk ba tey diw xaaral bu ñu ko roccee Aïda Sow Diawara mii nga xam ne Benno Bokk Yaakaar la bokk dafa bàyyi ba Abdoulaye Daouda Diallo ñëw commission mu ne ko yow ñun adjoint yi sax ñi ngi fayee ko suñu maire bi. huit mois maa ngi koy doog wax fii tey. toog nga huit mois amoo sa salaire. fa yuuxu boo teelee yuuxu ñu ne waa ji dana salaamaaleykum rek caabi mais na ñun dañ doon liggéey de quatre heures lañ doon xëy du matin. wàcc quatorze heures. fan yële.